Bienvenue sur Mesdames et messieurs, vous suivez les programmes de Salam Vision, une télévision au cœur du développement. Voici quelques brèves illustrées et présentées par Cheikh Oussafou. L'Assemblée nationale est en séance plénière depuis ce matin pour examiner avec les parlementaires le dossier d'Ousmane Sonko qui continue de bouleverser et de traumatiser plusieurs Sénégalais, tant sur le plan national international. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le QCM a démarré ce matin une grève générale sur l'ensemble du territoire national. Abdoulaye et ses amis demandent euh, des primes d'indemnité liées au baccalauréat. Depuis l'année dernière, la situation se dégrade sur le terrain dans plusieurs établissements scolaires, le CRISAM se sur le temps, demande aux autorités de respecter leurs engagements. Responsable dans le domaine de l'éducation, les inspecteurs académiques de la banlieue euh, sont en conclave depuis hier à Kermassar. C'est pour sensibiliser et conscientiser les enseignants euh, sur la situation délétère et déplorable euh, qui persiste dans l'établissement scolaire. Il s'agit bien de la maladie du coronavirus. Restons toujours dans l'actualité nationale. Le ministre des Transports, Mansour Faye, a rendu visite hier dans le département de Pékin les transporteurs et les usagers euh, sur la situation euh, sécuritaire euh, sur le terrain. Selon le ministre, les vieilles voitures qui durent de cinq à 10 ans seront euh, passées à la fourrière. Le ministre Mansour Faye a également euh, déclaré devant la presse d'ici peu de temps, toutes les régions du Sénégal seront dotées des contrôles et Euh, restons dans le domaine euh, national, démarrage d'épicière à Tambacounda de la campagne de sensibilisation euh, sur la maladie de la fièvre jaune. sur l'international, le président tchadien Idriss Déby a déclaré devant la presse que forces tchadiennes seront déployées sur le Sahel pour tenter de sécuriser les voisins. Il du Mali, du Niger et du Burkina Faso. La tension persiste entre les djihadistes et les populations. Le président camerounais Paul Biya a lancé un appel aux islamistes de garder la paix et la sérénité dans ces pays. Rappelons que le Cameroun est plongé dans une situation difficile. Depuis des années, plusieurs personnes ont trouvé la vie à cause de la situation qui prévaut au nord du pays. mbokk yi asalaamaaleykum ñu tënk ko si kàllaama Kocc Barma jamono ji sagara ngi xëy fële ci assemblée nationale ñuy waxtaane fële ca pencum ndaw réew mi lépp loo xam ne jëm na si mbirum Ousmane Sonko bi nga xam nag indi na dëkk bi ay ay jiixi jax ay jafe-jafe nañ si ñëw si yeneen euh, xibaar. Euh, ñu ngi koy wax euh, ki nga xam mooy Mansour Faye di ministre jëwriñ bi nekk ministre des transports démb ñëw na fii ci Pikine def na waxtaan ak transporteurs yi lépp ñu doon waxtaanee. oto yi nga xam dañu fi yàgg am juróom ak juróom benn at moom mooy fi dañu ba fële ca fourrière ministre nag nee na si kanamu gàttu xibaar yi euh, nañuy wasaare mooy les visites techniques contrôle technique fii ci wàllu Sénégal ak li ko war dañoo resté si biir banlieue bi xam nga ni mooy les inspecteurs académiques ñu ngi si mbirum jàngale mi ñu waxtaan dem fële ci Kër Massar di mën a ñaaxaat jàngalekat yi ñu mën a góorgóorlu mooy ka nga xam mooy coronavirus ginnaaw mu faatu ñaar fukki jàngalekat euh, fii ci biir Sénégal jàngalekat yi ak euh, yenn professeur d'élèves yi professeur établissement yi ñu ngi koy ñaw mbokk yi yéen xibaar yi ba léegi fii ci Salam Vision fële ci Tambacounda la ñu tàmbalee démb benn campagne de sensibilisation jëmale ko si pays pays mooy feer boo xam ni dafa dellu si Sénégal am na ñaar nit ñoo xam ne ñàkk seen bakkan fële ci Tambacounda ak euh, Kédougou bitim réew la ñuy doxantu xam ngeen fële ca euh, N'Djamena Tchad amoon na benn sommet bu mag sommet G5 euh, tase woon euh, dajale woon ay juróomi chef d'état africain lépp ñu waxtaanee jëm na si mbirum karange fële ca diwaanu Mali Burkina Faso ak Niger xam mooy président bu Niger après mooy président bu Tchad di Idriss Déby ne dina yónnee jur nekk ñaar fukki soldats yoo xam ni fële ca Sahel mën fa yokk karange président bu Cameroun Paul Biya mi ngi woo. Euh, way fipp yi fële ci Cameroun ñu mën a toog waxtaan génne Cameroun yi si ay jafe-jafe yoon ay xibaar si kàllaama Kocc Barma présentation Cheikhou Sakho mbokk yi jaa ngeen